bokki àdduna bokki internet yi yëpp Baye Lamine Gueye borom bool bi moo leen ne di leen siyaara ci bis bu bis bi nga xam ne bisu kontante la ci biit ci képp koo xamante ni bëgg nga Sénégal euh, ñu siy sant yàlla bu baax di ñaanal yàlla site bi nga xamante ni ci lañuy bëgg a jàllale suñuy suñuy xalaat ak suñuy kàddu yu cant muy lu xew TV maa ngi ñaanal borom di ñaanal site bi ak borom site bi yëpp borom site bi yàlla yëkkati ko te gën a dëgëral euh, taxawaayam ba li nga xamante ni moom lay mibet ci site internet bi yëpp yàlla defal ko ko waaye yàlla musal ko ci tarkiis na mucc daal ci lépp loo xamante ni dafay yàq ah, liggéeyam yal na ko si yàlla musal di wax ne maa ngi sant yàlla bu baax di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bu ñu sante yàlla nag ñu ngi sant itam suñ président Mouhamadou Macky Sall euh, di sant euh, ministre de sport waxoon neen ko dañ koy dolli waat duñ dañ di ko encouragé duñ dañ di ko gërëm duñ dañ di ko ñaanal yàlla itam ndax nit ki bi qadri ma tuhibbu loolu la boroom xam-xam yi wax walla Baye Niass loolu la wax ndax na bi qadri ma kem ni nga bëggee noonu ngaa xamee say tëbb moom nag yàllaa ko tànnal mu nekk suñ ministère yore suñ ministère de sport wàllu sport bi ci réew mi yëpp mu yor ko ñu gis nim gungee sóor yi ci kaan bii nga xamante ni moom lañ gi moom lañ nekk nii dañuy ñaan yàlla yàlla yóbbuñ ci final ba ak jàmm ñu xam fa jàmm jël ndam li indi ko Sénégal fii yéene neen ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax te ñu ngi koy ñaanal yàlla loolu yàlla na jël ko bi ca Qahira ànd ak ay suyeeram ànd ak entraîneur am ak fédération am ak staff bi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kii bi yëpp ak si supporter bi yëpp ñu ànd ñëw Sénégal Sénégal yëpp da leen teeru mag ñeeg ndaw ñi borom xam-xam yeeg ñi digg doomu yëpp kam sama classe bi ñépp teeru leen sant leen gërëm leen bàkka leen eh, ñu teg raaya bi ci loxol njiitu réew mi Mouhamadou Macky yu Sall mm, ngi ñaan yàlla loolu te duñ jot ci di ko ñaan waaye ñu ngi wax itam ne lii dem na ba nga xamante ni fum ne nii euh, buñ xoolati intérêt personnel nañ xool li nga xamante ni suñ dignité réew la ndax mbir mi toll na foo xamante nii euh, dafa mel ni nekkatul dafa am lu muy joué ci jëmmi doomu aadama bi waaye dafa am lu muy suyee ci xelu doomu aadama bi kon nit ki mën a dem ba am ak dal bëri na loo xamante nii mooy ci wàllu bëgg-bëggam ci wàllu culture ba nga xamante ni moom lay dund mu am ca ndam loo xamante ni ñëpp koy ndamoo di ko sootee ndam lu rëy kon loolu ñu cee sant yàlla bu baax di ci woo ñëpp. kilifaay diine yi kilifaay aada yi sëriñ si bépp sëriñ boo xamante nii wala bépp doo jaamab yàlla boo xamante nii yaa ngi dund rek ci kaw suuf fii ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal ñu ngi lay tallal loxo nga ñaanal suñ gaynde yi ñu xam jàmm daje dajeeg euh, jasaa'ir mm, leen gañe seen gañe match bi jël coupe bi indil ko fii ci senegal mu nekk première coupe boo xamante ni dana nekk dana dugg Sénégal ci atum 2019 ci ayeeg euh, président Macky yu Sall waaye ayeeg ministère des sports Makhtar Ba waaye ayeeg Aliou Cissé muy entraîneur bi nga xamante ni moo jiite gaynde yi waaye ci Hayek Auguste Senghor mi nga xamante ni mooy président fédération bi ñoom ñëpp daal ñu ngi leen ñu ngi leen ñaanal yàlla si suñ xol ak suñ bëgg-bëgg lépp loo xamante ni mooy suñu jaan ñun nag fas leen yéene suñ li ñuy war a def fas neen yéene commencé ko bis ni ki tey kerek bi biñ demee ba qualifié rek lañ fas yéene commencé li ñuy liggéey pour gaynde yi jël coupe bi lépp loo xamante ni yaakaar nen ne suñ ko defee dana lottuloo waa Jazaïr may ñu ndam ci kàttanu yàlla daneen dugg ci pexe yooyu def ci la nga xamante ni moom lañu ci mag ñi jox ci ay tegtal ñuy ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rawatina nag ki nga xamante ni mooy yor xalaat lu xew TV bii nga xamante ni toujours ci lay jàllale samay su ma amee lenn loo xamante ni bëgg naa koy jàllale sama xalaat rek foofu laa koy jàllale maa koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla di jéggalu ñëpp nag képp koo xamante ni sénégalais nga maa ngi lay jéggalu di sàkkoo ci yow ñaan nga ñaanal. gaynde yi ñu dem ba indi coupe fii ci Sénégal ci kàttanu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa